mi nga baal ma man nag waxuma Macky Sall sax man dama ko dama cee bëgg di sori daal li tax bëgguma ci di sori mooy waaw dama lay expliquer rek waaw dañ dañu waxtaan maanaam li ma la doon misaalal mhm. ñëwuma ci misaalu sax ci ziare boobu ak bii damaa ñëwoon ci ñàkk respect gi ñàkk respect njabootu El Hadj Abdoulaye Niass foofu laa doon développé ñàkk respect gi ña ñàkk ñàkk ñàkk respect gi ñàkk respect njabootu El Hadj Abdoulaye Niass weesuwul kay tey buñ na gàmmu exemple rek ci gàttal mhm. international Médina mhm. na kese la il faut que la vérité ñuy leer parce que fala am ay Camerounais ay Nigériens ay ay Ghanéens ay Togolais ay Américains yuy ñëw Médina mhm. ba buuru buuru kanu muy Nigéria ñëw di di ñëw fii di ñëw gàmm fii nii mais où est le problème ba président mënu fi ñëw ci bu loolu xëy wala ñu yebal premier ministre mais ay ministre njalaxaani wala ay euh, euh, ki nga xam ne mooy nekkoon maire Kaolack bi ku jigéen kooku Mariama Sarr ñoo leen daan yebal ci suñu gàmm yeeg ñu mel noonu pendant dix ans ñu muñ ko def ci yeneen këru diina yëpp yi nga xam ne war nañ ñu li may kaas kaasuma comme si que wala li may wax waxuma comme si que liñ war a defal luñ war a def xaalis bi ñu joxe ak ceeb ak loolu loolu ñoom la concerne ak nañ koy jox mais seen teewaay ak seen respect kër El Hadj Abdoulaye dafa des te damaa indi firnde wax la beneen bi ci des mooy li nga maanaam développé ne maanaam immigration ñëwoon na ñëwtoon pour ziyaara lew nañu seen ah, dafa ñëwoon dém dafa ñëwoon pour immigration mhm. juma lew nañu seen ji nga xam ne Alaaji Ibrahima ko tabax def ci léppam ba desu lu dul inigr inigre ko Macky Sall ak ñam ànd ak ñëw ànd peinture ko ne motali nañ ko wooyaay yaay juma ji ku ko gis bu njëkk noonu dañuy waxante dëgg ña seen lañ dëkk jumaa ji Alaaji Ibrahima ko tabax ba desut lu dul lan financement yu ndawee ci desoon mu dem ooy ay marocain yoo xam ne ñëw foto yi nit ña ngi fi yor bañ commencé def jip yi ci biir ba mu déggoo woon ak ñoom ba am na suñ benn taalibe bu ñuy wax Malick Ndiaye boo xam ne Sandaga la nekk Alaaji Ibrahima maanaam commandé woon na ko karamar bu waroon a dem ci jumaa ji Macky Sall ñëw ak gouvernement jaar ci xelam wax loo xam ne nii kilifa xamul lool na ko mar karo yi maanaam chaque deux ans trois ans da ngeen di fëggaat mu wàcc te peinture bi ñu def ni peinture originale la toog dix ans cinq ans maanaam dañu ut ay ñu koy entretien jaar ngeen si jumaa ji ngeen peinture ba fa nekk peinture ba fa nekk sama peinture kër gee gën ak yeneen yu mën a wax ak yu ñu mënta wax mais loolu taxuñoo jug mais li ñu tax a mooy nañ respecté njabootu El Hadj Abdoulaye Niass nu mu la gisee la lay ëwalee dafa jot aussi tamit ñu xamal état wala ñuy laaj état wala lu ñuy laaj nangam suñu bëgg-bëgg ak suñu lan yow tey Kaolack suñu maam yi tëdd ci tëdd ci cimetière yi ku ci yeew yeewoon sa kër ngay jubale direct dara changé wut fi mbedd yi ngeen fi ni ngeen fi ñëwee woon daaw jéeg ni ngeen fi ñëwee ren te ngeen fi ñëwee déwén lu fi changé dara changé wu fi ba pare tek ci am ay autorité yu ñu yëpp yoo xam ne respecté wuñu la preuve kii di ooy ay boppam man maay xaw ma candidat daara ji xaw ma sëriñ boobu di nax boppam xam nga maanaam yabaate weesuwul ñu jox la ville mënoo ko defar di laaj réew yow kaw Kaolack ba Kaolack daj bi nga commencé laaj bi nga commencé laaj réew mi ci lañ la gis yenn tali yi nga gaaw commencé koo fatt extra extra diggante tali cœur de ville diggante tali cœur de ville ba nangam dañ koo nangam lu toll ni Kaolack gouvernance amuñ ko dañ koo loué ba tey dañ koo loué di ko fay demal Kaffrine gii nii nga xam ne mu ngi commencé développé nga xool seen maire yi xool seen rond point yi xool seen hôpitaux yi tali kon ñun luy seen problème ba mënuñoo toog ñu xool ku gën si ñun ñu jox ko Kaolack mu defar ko bu ñu état mënta kooku defaree Kaolack xëy na ñun Kaolack danañ ci bopp loolu kese moom mooy kii bi. ne comme ci juge boobu tam eh, ñu nekkoon tey xam ne ñu ci bëri bëri ñu doon xaar ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi ci ab euh, wax boo xamante ni maanaam dañu ko doon xaar maanaam yow ndax li am nii li nga xamante ne am na maanaam yow moom nga doon xaar wala am nga ci loo xamante ne nii mbetteel la ak tam li nga xamante am na lan nga jàpp ne mooy solution bi. waaw am naa si mbeteel trop. mbetteel comme ci benn côté mbetteel gi ma ci am mooy. Euh, victoire biñ ñu naroon am le vingt cinq février maanaam ñu détourné victoire boobu mbeteel laa jaa ci am ak xol bu naqari. nu ngeen ko man Pastef laa bokk. loolu xam nga waaw leer na. xam naa ni ñu koy amee mooy. wax dëgg neex yàlla di bëreeg mbër. Mhm. jaar fu ne bëggoo mbër ma ñëw ca stade ba. mbar ma na ñëw ma waaye yebal naa kenn ku ñëw ci stade ba. ngeen d' accord ne kenn kooka d' accord nañ parce que conseil constitutionnel moo validé candidaturam pour mu war a dem muy Bassirou Diomaye Faye bi mu validé candidaturam ci biir loola ñu gis pion yi ñuy teg toujours ñoom maanaam dañ leen di séntu ci gaalu xaj ñëw fekkaat leen fa. mais yéen tam boo xoolee. may ma ma yeggali waxoon ne troisième mandat maanaam daf koy def bi nga xamante ne nii dem na ba dañ defu ko moom moom mel ni dafa indi koo xamante ne maanaam moom la wax ne mooy candidat am est ce que tam yéen euh, coow li nii bari na maanaam luy problème bi ñoom ñoo problème. nuñ ko amee parce que ñun ba Ousmane ne Jomaay laa tànn déggoo kenn ku critiqué na ànduma ci. Mhm. aussi tamit gisoo parce bañ bañ commencé campagne avant campagne bañ bañ joxe kii ba léegi virgule ba léegi gisoo kenn ku bokkoon ci Pastef yolleeku dem feneen ne maa ngi ànd ak ñi mhm. gis nañ ay parti parti ñu ngi ñëw mhm. ñii bokk ci APR lañ bokkoon ñii feneen ñii feneen ñii feneen. waaye usman dafa am benn benn maanaam philosophie bu mu gëm. mooy atta diine l'islam sax yéeféer bi wala chrétien bi bu ñëwee tuub dugg si dañ ne la bu ko fàttalil sàngara yam daan naan ñaawteef yam daan bon wala nangam parce que yàlla jéggal na ko lépp day commencé waat a zéro kon képp ko xam ne nekkoon nga ci système bi donte da nga doon lekk alalu nguur di ci nguur du ci nangam boo retourné gis ne la nga nekkoon nag du dëgg caaxaan la bëgg ngaa ñëw ci dëgg gi boo ñëwee dañ lay dañ lay wax bienvenue accueillir la boo ñëwee nag suñu sarta mooy jub jubal rek boo mënee jub jubal ànd ak ñun boo mënta jub jubal génn nga waat feneen am na ñu ku mel ne Khalifa Ababacar Sall ak ñoom ànd ak nangam gis nga ko même si que bañ leen di protéger di leen defaral seen der ndeke ñoom jub jubal gi dañ ciy bëgg a dugalaat dëng-dëngal dëng-dëngal googu moo leen indi li li dal li dal leen lépp. parce que tey buñ déglu woon Ousmane Sonko réew mi du àgg si du àgg ak tey parce que wax na leen ko ne leen Macky xamul waxtaan yéen yéen ko xam mais xamu ko parce que Macky Sall xamul waxtaan weesuwul yëpp nit ñi weesuwul nga nga jël réew mi da ngay wàññi da koy wàññi da ngay ñaari cinq ans. njëkk a def njëkk a def sept ans jékki-jékki waat newaat da nga koy da ngay da ngay da ngay yokkaat wala da ngay nangam def benn cinq ans kon jeexut say ministre ku wax ne waroo def troisième mandat nga ñu dàq la. ñu dem ba ci ba à la fin yow mi daan dàqaate nga taxaw ne waroo def troisième mandat yow kay kon dàqal sa bopp parce que yow ku wax waroo def troisième mandat nga dàq ko yow ndey mbili gën a ñëw foofu taxaw ne dama defuma troisième candidature kon kay ñu ngi doon dàq jëlaat leen kon. parce que wala yow bu fekkee ku waxoon loola moo dafa def grand grand franc deli tam dafa tombé rek parce que tam bu fekkente ne comme wolof euh, mooy faral di wax ne tombé moo sëñ bi ma tënkal ma tënkal la ci gàttal lool tënkal ma ko bu tënkee ko sénégalais ñoom ñoo war a jël seen responsabilité ci wax ji wax Macky Sall wax mhm. suñu responsabilité benn la woon mhm. muy ñu dem le vingt cinq février mhm. duma leen duma yu métti yaa ngi dégg duma yoo xam ne maanaam moom président Macky Sall bu ko neexee day këf avion daw France def déclaration na gagné nañ ma wala mu def leneen waaye àdduna bi yëpp danañ xam ne muy neex ak muy naqari du may métti na may ma tuuti gàllankoor may may ma tuuti bu ma dagg dimbale ma rek bu ma dagg foofu mhm. loolu mooy premiere d'abord deuxième man damay assumer samay responsabilité mhm. vote yi conseil constitutionnel la ñu déglu dégluwuñu Macky Sall parce que conseil constitutionnel maanaam moom bu dogalam bu xasee ba génn ñëpp ci lañ war a tënku élection dana am ak du amit du moom moo koy wax wala moo moo koy ñàkk wax moom fi mu toll nii citoyen la comme man parce que ba élection yi démarré ba candidature yi génn rek moom ca la nekkatul président léegi nag bu fekkee le 25 février ni bi commencé commencé nañ campagne bi ci la palace président di dàqoo en entendant ma bëgg a xamal sénégalais yëpp ne leen mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam maki Sall moomut ñu moomut réew mi téléchargé wut ñu jëndut ñu. dara sarse wu ñu jëndul ñu moom la moom nan la mel lu ñu melul ci réew mi ñu ko fi gën a jàng ñu ngi ci réew may ma tuuti bu doon ne juddu la bu doon ne juddu la président bi mu doon ci réew mi falu falu boppam ñoo ko fal ñun bu doon ne boppam ak boppam rek la du am benn voix wala benn voix ci lay am wala ñeenti fois moom mareem ak ñaar doomam ya mais ñun sénégalais yi ñoo ko óolu woon ba fal ko ci ay carte ci urne lañ ko fal Abdoulaye Wade remercier ko jox ko réew mi mais depuis mu jëlee réew mi léegi guute gi mu dugal Sénégal amul benn président fu mas a jaar dugal ko fi parce que président Macky Sall ci la Sénégal xamee couvre-feu président Macky Sall moo jël réew mi nangu passeport diplomate sëriñ sëpp ñu jékki-jékki dégg na ñu ngi koy jox ay góor jigéen ak ay lesbiennes président Macky Sall maanaam moo jël moo jël réew mi maanaam mboolem chef de village bu ñu joxoon oto mu nangu say oto président Macky Sall ci nguuram lañ gisee ñu jàpp ay doomi kilifa di leen tëj la preuve Sidy Lamine Niass Cheikh Béthio Thioune ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu mënta lim président Macky Sall ci nguuram keroog bi ñu commencé ba ñu xayma cinq cent et quelques sëriñ daara yoo xam ne tuumaal nañ leen viol ci loo xam ne nii gis nañ ne ñii li ñuy jëmbat bu sottee maanaam carte carte électeur sax Macky saal du ko gisati ñu ne nañ gaaw taqal leen ay viol ay nangam ci ay caaxaan waa président Macky Sall nag ci lañ gisee moom it ci nguuram gii saako ceeb doon jar douze mille francs dem ba vingt et un mille ci moom lañ gisee nguuram gii bidon diwlin doon jar doon jar quatorze ci vingt six mais léegi yow may ma tuuti rek ci moom lañ gisee nguuram gi aussi tamit li may wax ay maanaam ay révélation yu ni gis la. ngay wax lépp comme presque. courant yow sëñ bi yaa gën a xam li may déglu ma rek. courant non il faut tam nga daan yor nga déglu ne da ngay li moo baaxul rek nga da ko wax xanaa am na lu baax parce que tam man daal dama yaakaar ne. léegi léegi léegi waxal ko ko waxal ko ko waxal ko lu baax ah, la koo soo waxee ci passe A war ngaa indi B parce que tam man dama yaakaar ne yow comme da ngay wax nit ñi di la déglu di la bàyyi xel tam waroo koo centré wu rek ne ci baaxul baaxul baaxul baaxul mel ni comme koo xamante ne ni si yow da nga fare rek ci benn côté man dama foogoon ne yow su lii baaxul xanaa xanaa yow war nga mën a xam loo xamante ni lu baax loo xam ne Macky def na ko ci réew mi wala xamoo ci benn xaw ma ci benn ah déedéet xanaa kon nekkoo ci réew ci réew mi laa ne. ah ci réew mi gii ak maanaam ay hôpital bu ci mel an Seexul Xadim. bu mel ni yu ci mel ni yoo xamante ne ni maanaam. Macky Sall yaa ko def a ci réew mi. énergie temps nga dem Dakar. ñaata budget lañ ko jox. ñaata budget lañ ko jox. ndax gis nga ko wala la gisoo ko loolu. gisuma ko parce que dama ci hôpital yi. Abiyaas euh, awoo ci. déedéet Abiyaas fan. ah bi jëm Touba. bi jëm Touba naa ci waaw. waaw kan ma ko def xaw ma xam nga c'est-à-dire waxtaan xam nga cest bu fekkee da ñëw pour interview ma. damay wax sénégalais li nga xam ni. non interview ak émission wax ah. ah. na ak déclaration bi. bi lan mooy solution bi. solution bi wax naa ko xanaa déggoo wax dama ne la sénégalais yi a jël mhm. jeexal na wax moom li bëgg mi koy def. Mhm. sénégalais yi bu fekkee ñoom bëgg nañ mag maam réew mi jóge ci loxo Macky Sall. ñoom mag ñoom ak Macky Sall la rek. léegi yow. voilà léegi ndax ngëm-ngëm bi nga amoon ne la 25 euh, élection day am ba léegi ndax am na lu ci changé wala ba léegi tam fa nga tegoon sa tànk ba léegi fi nga ko teg. ma tegoon sama tànk laa ko teg parce que Macky Sall citoyen la comme man actuellement nii rek conseil constitutionnel ñun ñëpp citoyen lañ ci moom moo joxe moo joxe ordre ne élection dana am. Mhm. lii ak lii ak li candidat yi génn joxe seen i constitution. Mhm. yaa ngi dégg conseil constitutionnel joxe benn benn maanaam wax buy wane ne lii du am du président la ñuy déglu actuellement ni conseil constitutionnel